jël nii Adama toogal dama la soxla xamoo fu ma jëm yow la sa xel dal ba nga tëdd naa da ngay noppalu man hôpital laa jëm sama test yi ma defoon laay jëli lekkatuma naanatuma nelaw moom ma man suma ma toogee ba def test sida bañ ma da nga am jàng sida man fan laa koy waxee jóg nga yàq sama adina. ma lay jégalu bu baax nag jàpp naa ni li ma la wax yépp dérapage rek la te nous suñu bëggee delluwaat suñu famille ni stabilité am am sutura dañuy construire l'avenir parce que la paix ce n'est pas un mot c'est un comportement quotidien te war na nag jot ñu table rase une nouvelle vie Adama ma lay ñaan nga jégal ma bu baax lu ma bett la rek mais maa ngi jégalu bu wér parce que yow laa sañ a yaay sama soxna ñu nekk ci kër gi ak suñu doom. yow jóob lan la Diop xanaa yërëmoo ma Diop yow lekk fu mu neexee ma taajal la ko fu boisson seddee ma jox la nga naan sooy génn alañ yi ci kaw bu suuf ma xool la ba xam ci yooyu correct bo ñëwee fekk ma def tagal bam baax tok di la xaar nga melni tangal bant ku macc rek ba mu neex la yab jox sa morom yow job li nga nekké ba sa jamm la yow suma amé sa da do yak sama adina, ya tëra teud nak yow yow yaa ya tëdd. de façon man amna solo sax lu la wax ji la dernière fois ñëw nga li wax bi mais façon bi nga may wax ak man nang ko xolat jor ah. ki yow la yow halat, xalat te dang ma bet ku ni ma woon alimar yow yaay tok yow soulevé fi sama passé yak sama aduna ba tax suñu dom miriam roñ ay bagasam dem keur mama ki du yow yow dang ma bet fogon nani kenen moo may def lii moo may taxawoo nii ku dul yow yaa may weer tey bett nga ma lool. sooy wax ak man man sa kilifa laa toujours ma wax la ko del wax ndànk di wàcce sa baat soo bëggee ma déglu la ñuy waxtaan mais su ma ñëwee nga may yuuxu di ma wax ay kenn xam et puis dama ma parle tout le temps de sida la lii la la. tali sida lan may wax ci ay waxu sida sida bi ngay baña dégg dina ko wax tay dina ko wax suba dina ko wax gëna suba ba résultat yi gën do am jamm mais tu merde enfin tu merde adam mën na nek mbett ci yow waye soko xolé ci juumte rek dotul don mbett te di nga mëna am xolu balé et quand ta miriam suñu dom la ñun ñoko jur mënuñu të su ma jugee dinaa ko wo téléphone té dina ko jëli indi ko ci biir kër gi comme ni ma la wax rek ñu déllu nek en famille parce que Miriam gennam si kër gi sax mel ni tay ji ni lampe bu fay ci nek bu landam Miriam c'est le fruit de notre union Miriam moo ñu ci lepp si loolu lay gëna a lu sax ngir di la wat mais yow est ce que yow yow mais est que yow sa doo xool fa nga jëlee sa sida bi est-ce yow amoo far toujours yaa ngi mu ci gën xaw ma ci loo nekk xaw ma ci loo nekk ba ma sonal ah war yow lañ set sa affaire mais qu'est-ce que c'est que ça. jërëjëf Diop yow lii nga may fayee waaye nag caga bu jiinee moroomu caga caga du ko metti waaye maa ngi ni hôpital laa jëm jërëjëf Diop. Adama baal ma àq. baaluma la. baaluloo ma. Adama ah Adama yow tey doo baale. Adama tey nga mënta baale. Adama yow nga rey sa doom. def infanticide. Adam nga def prison yow man ma lay fekk prison man rek maa la doon fekk prison Adama man kase Adama nga accouché gisoo ki la ëmbal Adama nga rey sa doom ngir gàcce bi ci nekk ak li la société bi nar a rejeté Adama c'est moi seul qui était présent Adama man maa la topp man maa la jàppale Adama muy neex muy naqari Adama man maa doon indi añ man maa doon indi reer Adama man maa doon topp fu ne ma dugg fa Adama ba ñu libéré la Adama loolu doyul de loolu rek ci Adama je t'ai pris ma jël la takk la def la soxla indi la sama kër Adama nga def lu neex ma revaloriser je dis bien revaloriser def la une femme indi la sama biir kër ba am Adama tey c'est ton problème defal la Adama je m'en fous gëmoo ni xale bu jigéen bi dafa sida. non je sais bi mu daan génneel avant man dee na ba ñu rob ko démb. ci phase finale sax la tolloo. Adama tey nga mënta baale Adama yow nga rey sa doom def infanticide Adama nga def prison yow man ma lay fekk prison man rek maa la doon fekk prison Adama man kase Adama nga accouché gisoo ki la ëmbal Adama nga rey sa doom ngir gàcce bi ci nekk ak lii la société bi nar a rejeté Adama c'est moi seul qui était présent day gis ni yaa ngi en plein forme très en forme. ça se voit. Omar dama la soxla. c'est à propos de. keroog bi may jël service. boos bi dama jox ñaari clé USB benn clé bi ma ko dugalee ci machine bi dama cee fekk sama photo jabar pardon sama photo jabar la fekk ci clé wu bi te loolu xam nga ci dara. waa xam yaa ngi dem seeraan bi waaw maa ngi dem kay yaa ngi dem waaw maa ngi dem dama bëgg lu leer de xam nga may jàll dafa voyage wàcc ma ci këram gi man moom dinaa la tànkal moom dinaa la sonal ngay dem rendez-vous parce que nag lii kenn du ko caaxaante te man mu bëgg nag ay explication nu mu gën a gaaw loolu laay dem. Ah, mais monsieur man malgré respect bi ma am ci yow ak considération bi ma am ci yow yëpp mais jaraloo ma aussi man may ñàkk sama liggéey di ñàkk sama place je suis désolé loolu boo ci bëggee am lu la leer <laughs> mais danga koy laaj boss bi laaj ko monsieur sa copain. Alima ni moo ko waxee waaye di gën a jeexal sama xol Alima dafa mel nii du kaa ah instant bi bu bees daa ko fi am lu xew waaw sama nijaay bari sa yëgoo ne yi mu ci loxo yaa il jël na un million yi jox sama yaay de moom la ko jox boobu da la fi may waaw may jàll moom day naan sàngara di ko nëbb wala lan moo ko dal hmm. man kay nee naa kii dafa dafa liggéey sama yaay. yow baraw nga xamante ni ñun bañu xamalikoo ba tey dañ koo fekk mu mu mu mën a njublan duñu toog fukki fan yu ko police jël siwul ci kër gi munaas wàññi un million di ko teg ci loxo bar moo yee nëbb ma nag ba dem mama nga fi doog a ñëw am na soufflé kon amna na loo xam yow xam nga forcément sama photo jabar lu muy def ci clé boss monsieur Diop monsieur Tall xoolal man loolu moom vraiment laaj ko monsieur Diop rek quoi moom dina la wax lu leer par rapport à ça man loolu xaw ci dara je suis vraiment désolé quoi. et c'est comme ça. ah c'est comme ça. je vais prendre mes responsabilités boss dina ma wax sama clé ci clé USB sama photo jabar la na ci def te j'espère que ni yow takkuloo ci. yow bi gën xam sama nijaay la def nee na ya, yow ya, yaa damaa wóolu këram amul dara lu may wax naan ma Alimar nee na ya? daf la bëgg a takk bu bés bu la yàlla mayee sa bopp daf la bëgg a takk takku suuf <laughs> man xawma lu ne mbir mi mais moom am na lu lu ci ñuul baro dafa baro xamoo leen ko waaye bu la ci dara metti maay jug lijjanti ko baro moom ko teg ci sama loxo dafa bon ah. munaas nu mu amee jikko bara di wàññi 1 million diko ci tek la xam ñak na yoy 1 million ko lan. ma ko fekkee maa koy lijjanti. dina ko génnee incha allah. te du rees. lan. yow bàyyi maa ko maa koy lijjanti man du ma dama ko sama tante moo pànk de lépp koy lijjanti. tontoo bara am nga gan Ah, tiens, M. Tal. Ça va bien vous ça va bien ça va. Je suis passé dans mon bureau. Oui, oui, c'est vrai. Vous ne m'avez pas trouvé parce que le matin, je me je suis là, réfléchir un peu je nga le point après bureau je sais. monsieur Tal, dafa am en fait déjà dama un souci quoi. Mhm. je dama dugal benn clé bi ci machine bi parce que ñaar laa fekk sa kaw table ko du ma wiri wiri damay dama ak yow droit tout dama fekk ci benn clé USB bi sama photo jabar sa jabar yow xawma ma lan la ci def yow sa jabar nga wax waaw sama jabar ci sa clé USB encore une fois je le répète lan la ci def الحمد لله رب العالمين jërëjëf yàlla suñu borom mais yow est-ce que yow yow mais est-ce que yow sa doo xool sa lëgale sa sida bi yow amoo far toujours yaa ngi mu ci gën xaw ma ci loo nekk xaw ma ci loo nekk bu ma sonal ah. di sant yàlla bu baax di sama décisions yi négatif yi alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin C'est soxna nom de tudd. ma femme. elle s'appelle Oumou Oumouane. elle est candidate aux élections de la mairie te candidate aux déjà Ça m'a photo d'abord. fait ci clé USB. maintenant ça me revient ça me revient. ñëw nga ak wax ak man ak honnêteté. genre man ni laa ko bëggee boo gisee lu la jaaxal ndax ma koy laaj man aussi je vais te répondre franchement dégg nga ah? man aussi danaa wax yow ak honnêteté parce que dama bëgg sama campagne ñaar ak yow yàgg suñu ànd ak yàgg. Diallo nii nga ma yeewee yow ah ah yow xam nga maa rek yow nee na kenn du ko yeewee de. soo bëgg ma yeewee noonu. ah ah yéen yéen yéen yéen yéen yéen a réew waay ah kilifa du tuut kilifa dañ koo war a jox ak àqam mais yéen jox leen ma sama àq ah lii waroo maa xam nga ne waroo maa yeewee nii yow ni nga ma yeewee nii waroo maa yeewee nii. Baro xam nga lan la man wax ju bëri ji indiwu ma fi xam nga lan laa lay xamal. yow baro lan yow ban mata di nga toll ba jël xali càmm mi jël ko di yobbu ba ca waaja nga ne ko da ngay ni dem pour ngeen tuubali ko lolu pour lan la eh. yëf fi ñak fayda yoy nang ko yow ci gor gui ni leng leng ñaaral eh eh ah ah ah ah ah, ah yéen ñii yow yow yow fos information lan la jox de non da ngay deglu bo xamul da ngay lacc ñu wax la xali càmm mo lay informer ku ñak jom non il y a quelque temps une fille est venue dans mon bureau fàtte naa sax tur bi ñëw indil ma clé bi war ma photo yi ne ma candidat la war donne, ci élection yi di élection locale yi mais warul comment ça ma expliqué expliquer affaire man ko de toute façon bàyyi fi document bi le temps ma xool ko après on va dans la waat de waxtaan mais depuis lors bon n'ai j'ai pas donné suite à ça quoi Faut la bailler clé comme nous nga sur mon bureau. pardon déjà, tu as une fille moi la Une fille, une jeune fille. comment elle s'appelle C'est dama fàtte je moom lay xool depuis ans..! parce que j'ai tellement de choses une certaine Fa. Quand ah. xam nga ko. ok Fa la je la connais très bien kooku moo indi clé bi sama bureau ne ma kii DG dafa nekk candidate au local te man am naa beneen candidat bu may soutenir je voudrais pas qu'elle passe. xale bu yara di ko ngi noonu. chum kooku kooku moom bu fi tudd sax ay mbiram kooku kooku nan nan lay mën a enceinte xamoo kan moo la enceinte. Hmm, xam nga bu njëkk nag man man ba àddinay baax jigéen bu boobu. bu bu bu wasinee lay am merit waaye kooku mérite bi da ko commencé sonal moom moom day wër di fen rek merit bi yéeg muy gën di fen rek chem kooku ku ñàkk jom a ngi noonu kooku amul jom yow nan ngay dooni jigéen ñu enceinte la xamoo ki la enceinte kan la kooku na lijjanti loolu waaye fen yi muy def nii nii nii loolu lijjanti la ëmbam boobu de man kilifa la waaw li ma war a lijjanti man maa ngi koy lijjanti waaw Khady Thiam la xamul mom mi xalé waaye ñun ñi yarandoog yow xam nañ la bu baax dangaa sikk gis nga yàlla li mi def euh, monsieur Tall suñu collaboration mo nax baax parce que li mënoon na ci yàqu parce que do comprendre mais heureusement que nga nek nit ku direct c'est pour ça man aussi ma répondre directement mais nak am problème comme demee ni suñu jabar la donc vraiment il y a aucun problème il y a aucun souci à te faire donc ça, les choses vont aller donc y a pas de problème tu peux dormir tranquille elle aussi bon grave quoi dingue et puis yo amna le ne ben benn jabar nga quoi <laughs> yaa ngi naan sama jabar sama jabar ah. ah? en tout cas merci. de ah, ah. du geste. non non cette fille je la connais. ok je vais régler son affaire. ah mais euh, merci encore. non on a non am sax mais xam naa ne yow sama ni ma la gisee ñaari jabar nekkagul sa bopp te soxna si moom. un million yi may jàll djel ko tek sa loxo la bëgg nga lijjanti ko nak. ndax man dama koy lijjanti 1 million yi soit mu dellu ci borom wala mu tegu fi ma jox ko borom ndax soxlawuñu 1 million lii am am na ba pare yéen da ngeen a matadi yaa may jàlloo ful la xeeb ngeen ma waay. amul rangañ xam nga ne jooyoo. xeeb ngeen ma de xeeb ngeen ma de xeeb ngeen ma xeeb ngeen ma nag yéen de xeeb ngeen ma ah waaw waxi un million lu ko fi un million yu ma jox ma yëkkati ko teg ko ci loxoy borom xamal ko ñun ñun suñu askan kenn du ko tilimal nga toogaat fii di ma wax wax un million yi kenn yéen yéen ngi ci un million yi ba tey bàyyi leen waxi un million yi un million yi teg leen ko ci suuf un million yi ngi ci boroom jox naa ko boy mar kon Khady Camara man bëgguma ku dëgër bopp toggal ma pain de crabe à la gourmandise loolu laa bëgg maa la jox sama xaalis eh. déglu nit téléphone bi rek mu demee. waaw ah, monsieur Tall. waaw ah, gis nga de yaa ci kaw. waaw mais saa yi naroon naa def erreur. waaw mais yow man ni nga demee ak ni nga ñëwee daa bokkul. non yooyu yooyu yëpp jeex na. j'allais commettre la plus grande erreur de ma vie. Ah. mais gis nga grand bi grand bu baax la quoi. grand ban. Je photo jabar xamna liko def ci machine am jox mais gis nga cette fille là. je vais régler son problème. mais grand bi mo teg ci suuf régler problème bi Qui kan mo régler problème bi. ki waliw la la wax. kan grand bi. Je ko man japp nako de. bureau dama yow <laughs> rek. may un million yaangi ci loxo mar kérok bima ko may jallo joxé la jël 1 million yi yóbbul ko mar xamal ko ni ko ñun suñu asken kenn du ko tilimal tey nga tok di wax waxi 1 million ba paré yow sa dom joju ki Fatima koku maa ko fekk ci fusut bi fusut bi la ko fekk mu tok ah, xale bu góor bi di jëndal rër ah li ñuy wër di wër sandis lu mu doon nañ tok di reere seen kër yi ah xale tit nañu nanu torop ah xale yi nanu nanu yam nanu régler waa baax na rek bi ci des man un million yi nekkatul ci man damaa bëgg mu leer ci seeni nopp un million yi borom keroog bi ko may jàll joxe laa laa ko jox borom ah maar nag moom moom laa war a lijjanti fi ne nii moom moom moom am na lu mu war a lijjanti baag maar te nag benn affaire du yem foofu ndax maar xam na dinaa ko régler ak moom mm. un million yi nekkatul ci man jox naa ko boroom loolu laa bëgg mu leer waaw léegi nag li ci des mooy lijjanti ëmb bi fi ne ci loolu laa toll dem naa ba ci maar waxtaan naa ak moom alimaar mi joxe woon xaalis bi loxo xaalis baa ngi ci moom jox naa ko alimaar salaamaaleykum inspecteur